asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp salaam di wax ni que bonne fête de l'indépendance à tous les sénégalais ak fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna rek xam naa ni tey lu ñuy naan picc a ngi si kaw waaye xel mi ngi si suuf sunu mbokk sénégal yi nekk si diaspora bi ndeysaan euh, jàpp naa ni ndeysaan seen xel ak seen xalaat yëpp mu ngi fii si Sénégal rawatina bu ñu amee bés yu toll nii donc bésu tey bi dégg nañu discours de la nation son excellence monsieur le président de la république yaakaar naa ni dinañ ci ñëw mais balaa boobu dañu bëggoon delloo njukkal delloo njukkal ñan euh, delloo njukkal sunu force de sécurité et de défense yi euh, boo ne force de sécurité de défense nag bàyyiwoo gendarmerie bàyyiwoo police bàyyiwoo waa administration pénitentiaire bàyyiwoo waa douane bàyyiwoo sunu mbokk militaires yi bàyyiwoo kenn di leen ne bonne fête di leen di delloowaat njukkal di leen ne sénégalais yi encore yi bëgg Sénégal kontaan nañu si sunu soldats yi au moment bu ñu toogee sunu kër di nelaw jamono jooju ñoom si ñu ngi si frontière bi di veiller sunu sécurité au moment bu ñu toogee sunu biir kër di nelaw police a ngi rond ci biir dëkk bi di veiller sunu sécurité au moment bi ñu toogee sunu kër di nelaw gendarmerie mu ngi ci dëkk bi di veiller sunu sécurité kon gàcce ngalaama ñoom te ñoom kat dara ñoru leen lu dul ñu nekk si jàmm ñu nekk si salaam moo tax ñuy dund lu metti ndax toog si frontière doo nelaw 24 heures sur 24 fuñ la romb yaa ngi sa arme teg ko si ndig ngelaw li bu ngi ñëw taw li mu ngi lay fay fekk ak leneen ak leneen ak leneen donc vraiment ñooñu ku loon delloowul njukkal doo nit sénégalais yëpp warona manko mànkoo ne sur sunu forces de sécurité et de défense ndeysaan ndax nit ñu baax lañu nit ñi nga xamanteni ni ñoom ñaaw ndax gis nañu mën naa ne sous région bi mais vigilance sunu armée bi vigilance sunu gendarmerie vigilance sunu police moo tax tey ñu ba léegi ñu ngi ne alhamdulilahi rabbil alamin donc ñooñu dañ leen war a di delloo njukkal saa su ne ñu bañ di déglu ñii di naan attaqué leen police ñu bañ di déglu ñii di naan attaqué leen gendarmerie ndax bu leen fàtte ne police wala gendarmerie wala militaire ñoom ñëpp ay sénégalais lañu te ñoom ñëpp si ay kër lañu jóge te lu leen tax a dem nekk police wala gendarmerie pour veiller sunu sécurité kon ñooñu waruñ ñoo gën a gore déedéet parce que neexul de nga nekk magum jëmm nga waroon nekk enseignant nga waroon nekk ji tailleur nga waroon nekk ji mécanicien nga waroon nekk leneen nga préféré na man dama bëgg nekk ji solda pour veiller sama sécurité réew pour xool lépp loo xamante ni musiba la mu nar a dal sama askan ma def la tout ba musiba boobu bu mu dal sama askan bu naree dal sama askan mu dal si man loolu mooy patriote doon ñooñu dañ leen war a delloo njukkal ñu bañ manifestation bu amee ñu naan ñu ngi taal auto police manifestation bu amee ñu ngi naan ñu ngi taal auto gendarmerie manifestation bu amee ñu ngi naan dañuy jël xeer di ko sànni police wala di ko sandi sànni gendarmerie ñooñu si ñun lañu bokk ñooñu xeer yi ñu leen war a sànni mooy nga dugg si Auchan ba jënd fa bonbon yi baax wala nga dugg si Auchan ba jënd fa boisson yi sedd guy nga fekk leen fu ngeen fu ñu taxaw nga ne leen am leen jël leen lii waaye nag commencé nañoo yàq jikko yi ba tey ji yenn leader soi-disant politicien ñu ngi dugal si bopp ndaw ñi que policiers yi seen ay ennemis lañu ñu ngi dugal si bopp ndaw ñi que gendarmes yi seen ay ennemis lañu te gendarmerie mosul nek ennemi ken police mosul nek nekk ennemi kenn bu leen que gendarmerie bi fi nek mo fi nekkoon depuis Senghor gendarmerie bi fi nek mo fi depuis Abdou Diouf police bi fi nek mo fi depuis Abdoulaye Wade police bi fi nek mo nek ci jamonoy Abdou euh, président Macky Sall te Inshallah rabbi yag bu fi président Macky Sall jugee police bobu mo fi dess gendarmerie bobu mo si dess donc nagn len continuer joxat respect. sunu police joxaat leen gëdd ndax kat tey boo tëddee xaaj guddi quatre heures du matin ay agresseur wala bandi wala sàcc ne cëpp sa biir kër li ngay njëkk a xalaat ne xaaral ma woo police doo woo jamono jooju sa nijaay doo woo sa papa doo woo sa tànt woo leen police ngay dégg wala woo leen gendarmerie waa boo jaaxlee war a mën a woo police wala gendarmerie pour mu ñëw taxaw la donc lan moo tax nga war a mën a yëkkati xeer ne da ngay sànni ñooñu lan mo wara meuna tax nga dem seeni ay brigade ne dang koy tal pour lan donc lolu waru donc na ndaw ñi xamni police gendarmerie ñu ñu wara delo ñukal lañu ndax lu bax rek lañu bëggal suñu biir Sénégal ñooñu nekk ñu fi pour roubé Sénégal ñooñu nekk ñu fi pour yaq Sénégal encore une fois te bépp nit bu jóg pour ne yaangi euh yaqal gendarmerie wala yaangi yaqal police jàppal ni am nañu ay matuwaay kay ay jumtuwaay yu baax war a mën a dal sa kaw souvent dañuy dawal rek yërmande xam ne bu ñu jëlee seeni pistolet tiire la ko àllaaxira rek nga jëm ñoom ñu continuer dund te du doon am baakaar déedéet parce que yaa leen bëggoon rey ñu rey la mais souvent nga gis ndaw dem ba si auto police taal mbala ndaw dem ba si brigade gendarmerie taal te ñu mënoon jàkkaarloo ki yéen def leen lu bon mais ba léegi rek ñu ngi dawal yërmande xam ne ñii buñ leen tiiree c'est des sénégalais mérité wuñ loolu donc encore une fois ñu gàcce ngaalaamal police ñu gàcce ngaalaamal gendarmerie ñu delloo leen njukkal benn bët buñ leen naroon a xoolee ne ñii suñu ay ennemi lañu non non nañu bàyyi loolu nañu jàpp ne ñii suñu ay frère lañu dañu jàpp ne ñii ñii buduloon ñoom làmbaay ñaaw ndax defkatu ñaaw te fi bëri nañu jamono ji si àdduna bi waaw def defkatu ñaawteef fi bari nañu si àdduna bi donc bu leen déglu politicien bu leen di jox ndigal ne attaqué leen police bu leen déglu politicien bu leen di jox ndigal ne attaqué leen gendarmerie politicien bu leen jox ndigal ne attaqué leen police wala attaqué leen gendarmerie politicien boobu bëggul seen bakkan ndax ku xam police xam gendarmerie ak matuwaay yu ñu am ak doole gi ñu am te yoon ñoom dong la jox pour ñu yore arme ñu war a mën a dal sa kaw nga yëg ko lu metti nag ñuy maslaa saa su ne donc ñooñu war nañ leen mën a delloo njukkal rawatina nag si défilé 4 avril bi incha allahu rabbihi na ndaw ñëpp dem fële sa centenaire bu police rombé gendarmerie romb militaire romb ñu tàccu leen delloo leen njukkal parce que kat Mali bëggoon na am comme sunu police bi Guinée bëggoon na am comme sunu gendarmerie bi mais yàlla dogal na ni sunu police ak sunu gendarmerie sunu ay militaire tarkal la nee nañu ñoom ñooy les meilleurs mën naa ko ne ci Afrique gàcce ngalaama ñoom donc déglu na nu bu ma génnee si sant ak ngërëm sunu police ak sunu gendarmerie dégg nanu discours son excellence monsieur le président de la république euh, rawatina discours bi lu mu neex-neex yépp li ma siy jàpp mooy kàddu gi mu yëkkati jox ndaw ñi mooy ndaw ñi jàpp ni sama bir xol la len duggal ndaw ñi jàpp ni que duma leen mës faté insha allah rabihi donc na ndaw ñi continuer gëm son excellence monsieur le président de la république xam ni que insha allah rabihi le meilleur reste à venir président gis ngeen lum mu leen limal BRT bi ñaata nit la wara mëna jël pour ñu liggéey presque mille et quelques personnes ñaata nit la wara mëna jël di leen transporter à wañi embouteillage dégg ngeen bi mu defaree pont wu Marsassoum yeeg VDN beeg Cambérène beeg Lobatt Fall yeeg te yeneen a ngi ñëw incha allah rabbihi kon nañu gëm ñu jàppaat ñu xam ne kii ñu am bi ngeen ko gisee sànq si écran bi rek yaram war na mën a daw ngeen xam ne kii ñu am nitu jàmm la kii ñu am nitu salaam la kii ñu am yërëm na sénégalais yi encore une fois fàttewul kenn ba sunu papa yi Nos retraités yi sunu maam armée anciens combattants yi président donc encore une fois dañu ne son excellence monsieur le président de la république yenn ndaw yi de ñu bëri frustré woon nañu ndax yenn responsable nga comme ni koy tout le temps rek base bi di wax ak ndaw ñi ndaw xam nañ élection yi ñu jëm du élection responsable sa élection son excellence monsieur le président de la république motax ndaw ñi nañu xol neex lu nakar yépp tek pour nous jàppalewaat la nga continuer di jiitewaat sunu Sénégal gi ndax raay yi Sénégal tegu buñ ko ñu Paris raay Sénégal tegu buñ ko ñu Espagne donc encore une fois gatché ngalama son excellence gis nañu sa bëgg Sénégal police gis nañu li nga leen jëndal si ay matériel gendarmerie gis nañu li nga leen jëndal si ay matériel ndax kat saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel gis nañu sous région bi yëpp muy Mali muy Guinée muy fépp ci Afrique dëkk yi bëri tàq nañu waaye bu ñu demee ba léegi Sénégal nekk si alhamdulillahi rabbil alamin grâce à nos forces de l'ordre grâce à nos forces de sécurité grâce à nos forces de défense te loolu pour bu amee tamit dafa fekk ñu jox leen ay matériel yu baax ñu tok fi ñu tok di viser lu sori yore seen nganna yo nga xamanteni ni kat lu bon bu gisee li dina recul donc encore une fois mention spéciale à son excellence le gardien de la constitution sénégalais yi ci yow discours bi nga discours tay discours bu rassurant discours politique... discours politique waxo ci politique ñi la xaar pour nga wax ci 2024 est-ce que di nga toog wala toogaat non du c'est pour rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense rendre hommage à papa yi nos rendre hommage la jeunesse sénégalaise donc li nga def am solo encore une fois son excellence monsieur le président de la république kontaan nañu si yow bu baax la wax encore une fois dugu gox par gox waxtaan ak seen i yeneen i ndaw ne ëllëg bu ñëwee na muy 2024 bu ñu vooteel kenn ku dul son excellence monsieur le président de tous les sénégalais son excellence Alaaji Macky Sall encore une fois gàcce ngàllaama na liggéey bi continuer sa ay député sa ay ministre sa ay directeur nañu wàcc sur le terrain rek di wax ak ndaw ñi rek bu ko defee ñi meroon Inshallah incha allah rabbi dinañu teg maire bi Fasciné, encore une fois Gungé, son excellence le président de tous les sénégalais lim ñu plan Sénégal émergent mu daal continuer ak ba allah donc la famille sante nañ len wax ni rek mention spéciale à son excellence monsieur le président de tous les sénégalais Aladji Maksal. Sall la famille di profito rek di len nek bravo à tous les sénégalais.

waaye alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax ginnaaw bi ñu amee suñu force de défense yi ginnaaw tamit bi ñu amee suñu kilifa diine yi ñu sàmm réew mi sant leen rek gërëm leen di leen ne encore une fois bonne fête sama gars yi ñu fanaan ak jàmm ba suba incha allahu rabbi yi jaa ngeen jëf merci à toute la famille jaa ngeen jëf